homme de droit ndax sa xam-xam màcc jëm ci wàllu yoon démb bi nga gisee ab poste ñu ne Ousmane Sonko vous parle ban jàngat nga ci def en tant que homme de droit juridiquement. non xam nga euh, bi ñu ne Ousmane Sonko day wax man nag bon j'étais pas au courant man dama jékki-jékki nii rek ñu naan Ousmane Sonko ngi wax ma ne wax euh, après ma euh, affaire bi yëpp intégralement personnellement lim amuma ci lu ma bett nee naa la sànq ba mu commencé di jug di politique dama jéem a gëstu ji mooy kan xam Ousmane Sonko lu bari wax na ko am na ay responsable Pastef yu ma doon woo à l'époque naan ma saa yi euh, yi ngay wax ni day xaw a dévoiler suñuy euh, stratégie del noppi bi mu waxee ba pare laa xam ne ñoom li ñu doon wax parce que ñoom moom moom yi mu doon wax yëpp yu ci bëri wax naa ko avant euh, ñuy wax waxu ay joomaay ak nangam ba c'est-à-dire les plans en cadre nangam foo jëm en cas de nangam foo jëm Ousmane Sonko am na benn post bu ma gis ci Facebook damaa ree ba sonn nee na daa toog 2050 di ñu seetaan <laughs> mel ni daa xam li xewoon di xew yëpp xamoon di xew yëpp ba pare nag di procéder au cas par cas donc tey jii ni situation par situation waa ji euh, bi ma leen waxee ne la wër nañ ko ndombo. mais mais Pa Moussa bi Ousmane Sonko njëkkee def noonu ñu def ci Facebook am. ne Ousmane Sonko vous parle yaakaar naa yëngaloo na dëkk bi. mooy dimanche ko waxee léegi mooy dimanche yu Aïssata mhm. Tall Sall ba. Mhm. mu génne ab communiqué. non bu boobu bu jàlloon. waaw boo xaw ma ndax am naam amul. waaw mais luñ fa bu doon existé nag mu jàll ñiñ na a sonal la l'administration pénitentiaire. kon lu keroog la ak lu démb la dafa am uute wala. ah mais bien sûr c'est pas la même chose lii c'est préenregistré nous dit-on. Mhm. mais avant avant ñu ñu koy tegal ñu ñu euh, tegal vidéo bi. waaw non euh, xam nga tey jii nii euh, Aïssata waxoon na ko. waaw buñ ci génne woon dara juridiquement non seulement mën nañ koo corser la peine n'oublie pas am na am na ku ñu jàppoon au niveau de euh, camp pénal. Mhm. après ñu ne yokkal nañ ko ci peine parce que sortie irrégulière de correspondance. Hmm. yooyu lañ koy yooyu lañ koy yooyu la ñuy def et puis après administration pénitentiaire nangam nangam parce que au moment où je parle nii inspecteur Idrissa Sow en prison. inspecteur de l' administration pénitentiaire mooy bi euh, document boobu fuité woon. donc kon ju juridiquement doon na am ay conséquences mais lii moom lii ce n' est pas juridique c' est politique. Mhm. alors Ousmane Sonko dafa gagné la bataille judiciaire. je mhm. pèse bien mes mhm. parce que gars yi neen leen euh, justice bi man dama gëm ne Ousmane Sonko a gagné la bataille judiciaire. xam nga naka la. l' objectif de Ousmane Sonko c' était pas gagner de des procès. mais de leur dire que ni mën ngeen ma rendi mais seen loxo dina takk deret Mmh. actuellement des condamnations de Ousmane Sonko sénégalais yëpp ñoom seen xel xippi na ni kii il a gagné son pari comme ni ma koy faral di waxee bañ daan euh, éliminer des adversaires politiquement jaar ko ci ju euh, droit dañ lay dugal ci ruq xoj la ba nga sedd guy coow du jib du tàkk. Mmh. ba ñu bëggee def loolu Ousmane Sonko Ousmane Sonko da leen a ba ci pénc bi daal xel yëpp ñëpp yeew. weeje leen. taal projecteurs yi di leen gis ñëpp ne fang ñuy violer droit di ko continuer mel ni maa tey moo tax ma ne leen woon du matéisme juridique parce que gis ne juridiction moo wax li nga ne doo ko appliquer donc Ousmane Sonko a gagné la bataille juridique maintenant la bataille politique il vient de donner un coup spectaculaire Ousmane Sonko hier a donné un coup spectaculaire un coup KO je pense que sont KO parce que xam xamatuñu la suite des événements hashtag 1 donc vidéo acte un. Mm-hmm. acte un bi deux bi lu ci nekk acte trois bi lu ci nekk c'est des adversaires sont déjà couchés. surtout muy cinquante parce que nee naa la il a donné à sa carrière politique euh, une orientation de génie politique. il a donné à ses adversaires un coup KO xamatuñu fan la Ousmane Sonko yi jëm mooy li ma waxoon que ni ñoom dañoo toppoon cible comme Ousmane Sonko nekk ci deret deram bi di yàq nekk ci euh, justice di yàq lu ne ñu koy def. dem ba jékki-jékki Ousmane Sonko dupliquer sa personnalité. maanaam mel ni chasseur buy dàq ji benn gibier rek. gibier bi dem ba ci biir multiplier wu. léegi yow doo xamante kan moo ci Ousmane Sonko foo jëm. xawma ko voilà ce qui s'est passé en réalité Ousmane Sonko ñoom dañoo foogoon ne Ousmane Sonko boppam lay protéger boppam la bëgg doon président mais loolu c'est ne pas même analyser avec froideur les phénomènes politiques Ousmane Sonko en 2022 il a battu mm-hmm. il n'était pas dans la liste. surtout Ousmane Sonko euh, ci local yi il a quitté Ziguinchor pour battre campagne dans d' autres localités il n' était pas candidat Ousmane Sonko n' est pas imbu de sa personne il ne est pas dans l' politique moment bi mu leen joxee deram moment bi mu leen joxee boppam boobu mu ngi doon protéger un projet ñoom ñu topp ci der wi dóor di dóor ba fàtte projet bi Ousmane Sonko ak gardé son projet intact hmm. ñoom foog nañ ne ils ont eu de cause ba nu ko jàppee ngay gis ñoo doon jubilé bien sûr nan jàpp nañ ko jàpp nañ ko gis ñoo xamante ne dañ ne Ousmane Sonko mi ngi réanimation ñuy kontaan c'est-à-dire ñooñu ils ont perdu toute humanité humanisme génn na ci ñoom parce que nekkatuñ devant un adversaire politique mais un ennemi politique foofu laa waxee ne li ñu ko yéene mu bañ bokk élection moo ci gën a ndaw Ousmane Sonko boobu fekk na il a il s'est préparé sur tous les plans parce que la philosophie l'idée de ce qu'il loolu mu ngi ci bopp yi loolu mu ngi ci xol yi xotti benn euh, récépissé ca ministère de l'intérieur téyewu ko et l'ex-Pastef a été beaucoup plus efficace que le Pastef ousman Sonko protégé appliqué à la lettre matérialisé devise u muy lan don de soi pour la patrie Ousmane Sonko a matérialisé hier par sa communication qu'il a fait un don de soi pour le Sénégal et que Sénégalais yi tamit na nanu xam l'étendue de cet acte mmh. nañu mesurer profondeur u acte boobu noonu valeur u acte boobu noonu pour xam ne ñoom it mënunoo fay Ousmane Sonko ko ñoom it warunoo seetaan Ousmane Sonko ci dara parce que dafa jël lépp loo xamante ne ce qu'il a de plus cher sacrifié ko pour euh, ben bu nekkoon inspecteur des impôts rek toog teg lay tànkam ba léegi mu ngi ci bureau climatisé wu. bien sûr kenn du ko euh, inquiéter sur quoi que ce soit am na ñoo xamante ne ñoo bokk ak ñoom corporation ils sont devenus milliardaires mm. Ousmane Sonko même ses activités politiques. c'est tributaire de la solidarité de tous ces militants et sympathisants levée de fonds bi gis nga ko donc Pastef loolu moom moo doroon originalité amul benn xalif général boo xam ne moom mooy jënd euh, euh, siège mooy fay euh, siège ba mooy def lépp mooy buur mooy bumi hmm. voilà ce qui a un peu bloqué le PDS hmm. le PDS disait que Ablaye Wade c'était le seul constant hmm. effectivement ils avaient raison et quand Wade a pris de lage mais le PDS dafa couler c'est pourquoi il ne faut pas calquer un projet de société ci nit dama doon faral di wax euh, le capitaine Sankara que ni révolution li ko freiné mooy c'était calqué sur sa personne ba bi ñu ko faagaagalee révolution bi arrêté l'histoire me démentit et j'espère que ça va continuer à me démentir avec l'avènement du capitaine Traoré. Traoré mais malgré sa ils ont vécu une intervalle de Blaise Compaoré bu metti mm-hmm. donc révolution doo ko ci personne mais ci idéologie ci vision ci doxalin et c'est ça que Ousmane Sonko a réussi c'est ça que Pastef a réussi et c'est ça que le peuple sénégalais a parce que nag c'est le peuple moom rek moom moo am souveraineté mhm. moom moo may Ousmane Sonko la force de pouvoir aller jusqu'au bout de sa logique mhm. ba léegi euh, stratégie yi jeexagul ba léegi plan yi jeexagul nee naa la xamuñu ne nit mën nga bañ a bokk élection te jiite réew bi jiite réew bi laa la wax loolu beneen stratégie la bu garaaw la coro lu garaaw ngay wax Pape Moussa maanaam bokkoo ci élection bi ñëw hmm. jiite réew mi Mamadou Dia ak Senghor duñu jotee woon mhm. parce que Mamadou Dia moo woon moo jiite woon pourtant Mamadou moom mooy président te moo jiite moo jiite naka kon pour dire rek à quel point li ci kanam raw luy gën hmm. na leen ni hmm. moom il n'est pas imbu de sa personne mais wan na leen li ko Sénégalais Sénégal jaral Sénégalais yi tamit dinañ wan Sonko lan la leen jaral le 25 février di nga xam euh, ni ko euh, jigéen ñi di defee ci ngénte yi di delloo njukkal ba nga der Sénégal yi dinañ delloo njukkal Ousmane Sonko dinañ ko bàttale lu rëy ci élection présidentielle yooyu noonu bàttale ay euh, bulletin de vote mhm. Sénégal yi dinañ ko baati kuy nangul Ousmane Sonko kay moom Diomaye la ñëppay nangu Diomaye nangu waaw waaw Diomaye nangu <laughs> Diomaye mooy nangu su ku koy nangul gars yi ñëw di dugal bureau de vote yi fees del lay def ni ko Baye seen di waxee mhm. nee na Euh, na mbir mi feer na mbalit bi waaw na mbalit bi fees ak beige marron. parce que xol yi ñoo fees. ak naqar bi la ñu bëgg a becc ci beige marron bi mu fees ci mbalit mi euh, comme ni ñu ko waxee ndax ñu ngi ñuy fëgg léegi ne waxtu wi mi ñuy euh, dab donc mu mel ni démb mhm. Ousmane Sonko fi mu génnee vidéo bi stratégie vidéo bi baat ak tontu lay nirool ci diggante ñi nga xam ne dañoo dem ca palais de la république ngir taxawal seen bëgg-bëgg ngir taxawal seen personne ak seen am-am moom Ousmane Sonko ci loolu rek mu profité ñoom ñu def stratégie génne vidéo boobu ñoox leen ko wan leen wan sénégalais encore boolewaat leen ak sénégalais ne leen ñii li leen tax di wax ak li leen tax di dox moom mooy seen cëggal guy maanaam seen yëfi bopp alors que man li ma soxla moom mooy askan wi naat askan wi ne ci jàmm. yey na leen yeyeeti na leen li tax mu leen yey leen mooy. Mm-hmm. ñoom seen ñàkk a bokk. Mm-hmm. daf leen euh, tiitaloon daf leen metti woon daf leen jaral lu nekk. Mm-hmm. te Ousmane Sonko ñàkk a bokkam moo gën a metti. Mm-hmm. ndax moom ñàkk a bokkam dañ ko cee booleek euh, persécution bu metti. dañ ko cee booleek tooñ bu metti loolu noonu yëpp nag boole mu ànd ak esprit bu positif. dellu wan Sénégalais yi ne mbir mi ce n'est pas une question de jeu. Mm-hmm. mais de nous. alors donc si Ousmane Sonko est capable euh, de sacrifier tout ça mais ñii lan lañ leen def. ba ñuy dem pare di boole. moo jaaxal ñëpp. waaye seen bopp. ok ba ma leen gisee ñuy dellu président ne noo non décision conseil constitutionnel ñu yolos yolos yi di génn ma ne picc bi demoon fi ngéej ndaayaan yéen yàq ngeen seen crédibilité. ci dara Ousmane Sonko. du rek askan wi la éveillé. Mhm. mais l'élite Ousmane Sonko daf ko exiger à la transparence mhm. exiger ko au patriotisme sénégalais ñoo gën a xam so ces élites lan la ñu war a def gis nga euh, bi gars yi waxee nañ si ne nangam na nga jékki-jékki gis mi mi euh, dellu ginnaaw ne bokkuma ci. bokkuma ci bugaan nangam ñeneen ak ñeneen xam nga loolu lan moo ko waral. Hmm. taxawaayu peuple bi. c'est vrai. ils sont devenus exigeants. exigeants kenn mënatul taxaw di layam layami ci plateau yi bañ faale la. kenn mënatul leen manipuler. révolution bu extrême. et ça c'est tributaire de la communication excellente de Ousmane Sonko ça c'est tributaire de. euh, son engagement politique qui a été un engagement aussi de sensibilisation mm -hmm. à un certain moment donné Ousmane Sonko da doon communiquer di communiquer di communiquer communication boobu noonu tey jii la Sénégal homo sénégalensis bi assimilé mm. di ko doxee di ko jëfee ba kenn mënatu laa nax xool bu njëkk ba sax ku ñëw yooyu eh juriste cravate costé di dul la ay air rek gars yi ne noonu la léegi yooyu amatul de mm-hmm. da ngay wax lu mën a dugg ci bopp nit ñi ñu ne la lii yenu na maanaa waxoo ko ñu tegee la ne Sénégalais ci boppam moo am fulla te loolu nag wax dëgg yàlla jusqu'à des siècles ci kanam les histoires lana anal yi dinañ bind ne c'est Ousmane Sonko ci loxoom la jaar pour accès ci éveil de conscience boobu noonu ci émergence citoyenne boobu noonu donc moom it fu mu mënti nekk na siggi parce que il a réussi sa mission il a réussi sa mission sa mission mu mel ni tamit daf leen a saxal benn vidéo ne yeneen 49 vidéo mi ngi ci ginnaaw mu mel ni vidéo démb bi li mu def bu ko yeneen yeneen yeneen 49 yi naree def est que du yëngal palais bi wala gën a yëngal pale bi mais est ce que du yëngal institution yi waaye itam euh, euh, euh, comme ni ñu koy waxee pénitentiaire yi ak ñeneen ak ñeneen est ce que lu nu mel mënu koo yëngal li ma njot li ma njot li ma njot hmm. moom ñeemu ma koo wax sax parce que xam naa ne Ousmane Sonko dafa xam ña muy jàmmaar lool hmm. daf ko xam dafa xam ñi muy jàmmaar lool mais nag garaawul cinq quarante neuf vidéo 30 euh, jours a des. jàpp naa ne 30 jours pour rétablir le Sénégal ci dëkku droit. 30 jours euh, metti na mettiwul mais ku 11 mois 11 11 euh, ans 11 mois. buñ ko mënee muñ li ci des bareetut naam buñ doon ko parce que am na ku ne daf koy fàttali les CD de Idrissa Seck lui et moi ma ne ko déedéet Idi li mu dund ak président Wade. ngóor si ak ngóor si loolu la doon wax. le mm. passé. Mm-hmm. Ousmane Sonko est dans la prospective Ousmane Sonko futur la lay wax du ñoom du moom. donc effectivement li nga wax mën na nekk lu jar a craindre la mais foog naa ne euh, dina am moins de moins de dégâts collatéraux possible parce que Ousmane Sonko looloo ko bu am buy am lu ko metti ci mbir mi du moom li mu dund. mais mm-hmm. les dégâts mm-hmm. c'est-à-dire Ousmane Sonko boo ko gisee jour bi ñu arrêté Diomaye. mu réagir ci Facebook di xam ne ko metti Ousmane mënul toog di xaar Pape Abdoulaye Touré mii li mu dal dina ko metti c'est-à-dire ces dégâts collatéraux yooyu ñoom ñoo koy metti mais moom pas moom li mu def léegi dégâts collatéraux yooyu nag il faut les limiter euh, lu mu gën a restreindre possible mais 30 jours moom moo ci des yàggatul te a daan 26 26 oui waaw kon 25 prochain incha euh, mu mel ni euh, du rek euh, sunuy question yu ñu lay jébbal mais tam dañ cee bëgg di boole ñi nga xam ne mooy mbokk internet yi. ñu liir benn ci question yi. bàyyi beneen yoon parce que ñu ngi ñuy def signe que waxtu wi jeex na. Mm. mu mel ni Fatima Fatimata Koulibaly moom nee na. Mm. Thioro j'ai entendu que Macky est en train de vouloir dissoudre le conseil constitutionnel est-ce que dëgg la loolu mën na nekk. ñu tontu ci boobu rek yeneen question ñu bàyyi ko ba bii di ñëw. bon déedéet nga conseil constitutionnel mm-hmm. ñoom. bu buñ buñ buñ la tabee. Hmm. am nga mandat six ans. Hmm. non renouvelable. d'accord léegi euh, président mooy article cinquante deux boobu moo la doon wax. Hmm. mais yooyu même bu utiliser superficie ba def ko amul impact ci élection bi. c'est-à-dire conseil constitutionnel li mu décidé keroog ba ne vingt candidats yi la loolu kenn mënu ci dara même bu conseil constitutionnel bu bees ñëwee mais membre conseil constitutionnel moom kenn mënu koo dàq. tant que mandat am jeexul te mandaa benn lay am non renouvelable. donc foofu euh, na ci seet xel daal. mais nag gars yi moom da waaru. Mhm. fu ne mën nañ faa génn. mooy loolu. waaye itam comme lal laak lalli rek. Mhm. ñoom ñu ngi lal kee di lalli di teg yeneen yu gën a garaaw. Mhm. xel day dal kon na askan wi yëpp àndandoo Fatima yaakaar naa ni. kontaan nga ci sa question bi nga yóbbante ñi ci des dama leen koy ñaan rek incha allah vendredi prochain ñu béral question yi ndax ñu ak ñoom aussi nii lañ koy def rek di ko jokkoo ak ñoom incha allah question bu ñu mënti poser rek ndax.